et euh, des moutons au meilleur d'entre eux. Donc euh, encore une fois, un grand plaisir de remettre ces lots et euh, toujours de, de raffermir ce lien avec nos, avec nos partenaires grossistes. Tidiane Diallo, je représente la société Touba Khéoul Sambé Fils, située à Tiaroy. je suis le comptable de Touba Khéoul Sambé Fils. Ouais, c'est une relation, relation entre client et fournisseur. C'est une relation bien, depuis lors, ça fait durer presque de plusieurs années. yoo xam ne wax dëgg fa dëgg yàlla boobu ba léegi amuñu si benn leen gis ñu si benn gàtkat wax dëgg yàlla chaque fois ñu ngi satisfaire di ñu kii di ñu taxaw ni ñu war a taxawee wax dëgg yàlla boobu ba léegi en plus wax dëgg yàlla dañuy remercier bu baax euh, directeur bi commencé ko à tous les personnels de Soboa parce que euh, ñoom ñoo ñu permettre tey fii ñu yegg nii fii ñu yegg nii sans ñoom ñun duñu mën a dem ndax bu desoon si ñun rek ñun duñu mën a dem mais ñoom ñoo ñuy pousser tout le temps aboutin jusqu'à bu bañ tey jii ba ñuy mën a tudd tey di bu nekkee numéro un wala numéro deux ba ñuy mën a tey permettre ba ñuy mën a gagner ay prix comme wax dëgg yàlla ngi leen remercier bu baax a baax waa jeu bi dañu ñëwoon dañuy def chaque fois ce n'est pas la première fois dañuy def nax bu yàggul gañ naa fi moto tamit c'est la deuxième fois mooy gañee xar tout le temps dañuy ñëw ñu a ah, objectif yi boo ko atteindre comme objectif tegal moom objectif objectif boo ko atteindre di nga gagné benn prix objectif vi kii VIP sans boisson boisson la objectif boisson la boo xam dañu ma tegal ne quantité bi bu ma ko atteindre na naa gagné xar xar laa gagné mu dëgg yàlla mu nekk benn plaisir boo xam ne wax dëgg yàlla tey jii ku sañoon tey jii di nga gagné xar si période bii ndax période bi ñëpp Sénégal yëpp seen bopp xara si nekk waaw tey ji bu ñu ma ko yombalee wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ñu sant yàlla baax a baax en plus di leen remercier bu baax baax na partenaire partenariat bi di ñaan partenariat bi tam yàlla na gën a continuer yàlla na gën a jëm kanam ba ñu gis seen bopp ñu tam gis suñu bopp ñu sincèrement waa Touba Xel moom gis nañ seen bopp carrément waaw ñu ngi leen di remercier bu baax a baax allez merci. Euh, maa ngi tudd Ndeye Binta Sambou dama juwe si page bi euh, bu Soboa bi digital bi ma toog tuuti gis message. léegi message bi ñu ne ma dama gagné si laa ñëw récupérer sama xar contentement rek ñu laa gis dama kontaan maa ngi euh, maa ngi wax euh, population yi nañ tenter seen sens suñ gisee lu mel nii. Ce qui nous a poussé à organiser ce jeu, c'est que vous savez, je vais, euh, je vais fêter dans un mois, mais un an à la direction générale de la Soboa. Et réellement, euh, l'idée maîtresse depuis mon arrivée, ça a été réellement de raffermir les liens de la Soboa, étant entendu, avec ses grossistes, étant entendu que euh, la Soboa n'est pas grand-chose sans ses grossistes et vice-versa. Nous sommes dans un partenariat, main dans la main, et tout à fait naturellement, euh, nos succès sont les leurs et réciproquement. Donc quand nous mettons en place comme ça un dispositif, eh il est évident qu'ils doivent être en premier lieu remerciés, honorés, pour leur fidélité, pour leur soutien, pour leur, euh, ce partenariat et pour certains d'entre eux qui durent depuis de bien longues années.